ay ca mbokk yeeg xarit yi teew lu solution TV solution info di jot na comme niñ ko baaxoo di defee saay su nekk rek ci l'émission des émissions ñu am mbégte ak contentement ñëwaat euh, beneen yoon euh, di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal nag jàmm dem ba Thiès kay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm ñaanal ko suñu sëriñ bi. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam bis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xaalif yi ci biir réew mi yëpp yenn internet yi ñuy suivre ñu nekk si biir réew meek waa diaspora bi nga xamante ne ni duñu tàyyi benn yoon ci solution TV lu fi xew rek ñoom ñoo ñuy njëkk suivre di ñu bàyyi xel saay su nekk ñu fas yéene ci ànd ak nag ji Saa Njoogu Meng mi na xam ni dama lay souhaiter waa les joyeux anniversaire di la ñaanal gudd fan ak wér yàlla suñu borom bàyyi la ci sa kanamu njaboot gi ba ñu laan la papa bi yee màkk yaa ngi nii delluwaat ak lu nekk xaj ci ci kattanu yàlla ak mbaaxam euh, maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal bu baax a baax jërëjëf ma jigéen euh, ñu ngi xam mbégte ak kontaan ci yow dem ba Touba nuyu xalifa général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak wér. waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke. ñu koy mm. ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool tànd ak wér. amiin ziar sëriñ Xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ko yëpp di leen ñaanal jàmm. nuyu nañ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarimul Axlaaq nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm eh, wax ni merci ndax ah, tey di la 26 xam nga tey la ñu waroon a. Eh, feetu. Ah. Ah, ab xam nga élection yi démb la woon. tey ñu waroon a bégee war a feetu mu nekkoon anniversaire bu alaat daw me la naroon ne xam naa Macky Sall <laughs> eh, lii la ma lii la ma yéene wut loolu la ma yéene wut. ndax moo tax mu reporté kii eh, eh, anniversaire bi ko waroon a reporté dama ko waroon a reporté ba boobu ah <laughs> waaw yàlla eh, dagal sama benn xar am doom démb moo tax ñu tuddee doom ji report ndeysaan yow seetal lii rek lii yëpp maki la <laughs> waaw mais ba nag yow kii ba xaru pël-pël yi laa yor xar yi xar yi xaru Sénégal ah, yi laadum laadum man na yorumaay xar yii Hmm. jox leen ngooñ mi ak kii bi xool xotti carton jox leen ak kii ak yi ñu lekk <laughs> nekkuma ci xar yooyu de xar yooyu nga xamante ni bii booy xaru kii yooyu nekkuma ci xar yi sunu xar yii laa nekk maa foog ne xar yi ñuy taalal kilim la di leen tegal télévision <laughs> ak ay ventilo dañuy caaxaan rek loolu lépp ay lobby la rek <laughs> mais di nuyu ñëpp ñi nga xam ni ma jigéen ñi ñuy teewlu ñu nekk biir réew ak ñu nekk bitim réew. Mm-hmm. di am ci ñëpp mbégteeg kontaante di nuy aussi tamit suñu mbokk gambien yi. nga mm-hmm. xamante ni macha allah ma jigéen dañuy teewlu lu bari bari. di leen wax ni Gambie ak Sénégal. Euh, benn dëkk la. Mm-hmm. waaw benn dëkk la euh, tubaab bee ko xaaj. waaye mënta xaaj mbokkoo gi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm allahumma macha allah amin yaa rabbi yal na ko yàlla suñ borom bi wis ci réew mi yëpp montre bi nag sama doom eh, ma ko jox kado quoi ñaame ma ko jox kado eh. eh, ñoom bind dañ cee topp di tappale quoi ah mais benn la rek alaaji bu mag joxee mel na ni ñëpp joxe nañu. Ah, yàlla na ñu ko yàgg a defal. si barke rafet na trop rafet na kay nga ràpp ak jàmm te nga ràppale ko. voilà mi ngi noonu l' émission des émissions door na ñu nuyu nag Baye Assane Mesere nga xam ne say su nekk rek moo ñuy teg pression tey nag nekk fi ma nga fële ca diwaanu Daaru Muxti di leen ñaanal màggalu ko jàmm salaam. te yàgg ko féete si barke tey nag daañu ànd ak yéen ci waxtaan. ak rappeur bii di Nit Doff moom nag euh, sekk na waxtaan ak yenn média yi ba yëkkat yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ni mu doon doxee euh, ci biir prison ba ak avant muy dugg biir prison yi ci yenn concert yi nga xamante ne ni dañ ko xañoon yenn yu bëri tudd na ci sax ba tuddaale ci ki nga xamante ne ni moo di doomu président de la république du Sénégal di ay mbir yoo xamante ne ni yu doy waar la daañu leen ko digtal léegi ngeen daal di ko suivre alaaji daal di ci indi xalaatam Jean Paul Diaz di euh, wayjur ci Barthélémy Diaz moom nag dañ ko daal di laaj ab question bu jëm ci Sonko wala Diomaye ndax ñu nekk président mu ne ñooñu mënuñoo téye réew mi ndax ndaxte euh, amuñu benn expérience léegi léegi moom itam ñu leen ko dëgtal jeexalee ko nag ak benn rappel bu ndaw ci ki nga xamante ni nii moo di président Ousmane Sonko ay kàddu yoo xam ne yëkkati woon na ko jëmale ko ci président de la République mu mel ni moom waa ji du jug rek ci di ñu surprendre ci li nga xamante ne ni mi ngi koy wax jëmale ko ci de la République. République bien avant muy daal di wax ne du daal di def troisième mandat léegi léegi lay doon ñu daal di koy dooree ak nit dof kàddu yu mu yëkkati ñu dem déglu ko te dellusi. quelque chose qui sa engagement lan la lay yàqal yow ak lan la la defaral. li ma defaral mooy maa ngi jubóog sama bopp maa ngi jubóog sama conscience je me regarde euh, ci glace bi je sais que man la waruma Sénégal yi waruma boy yi ma doon topp depuis 2007 changé wu ma sama discours. su ma xool sama bopp si seetlu je suis fier de moi euh, modestie à part sans exagérer je me dis que ni c'est cette personne là que je veux être. boo yi ma doon àndal gëmloo leen lool dew ma ba jëmmi jamono ma mbas am na fi artistes yoo xam ne un artiste bu ñu demee ba ay doomu Macky Sall di jox rappeurs yi xaalis mais c'est extrêmement grave di leen tëggal ay concert pour que ñu bañ wax ci askan bi. te loolu am na fi le hip hop yi va dire quoi y a des des artistes yoo donc mag Sall moo doon moo doon tere artistes yi ñu publier man samay affaire ci jeel bi ñu wax ci man wala yu demee ah noonu waaw am na yoo xam dañuy publier léegi am ñu leen woo ñu dindi ko Aïcha mi ngi noonu alaaji dégg nga euh, kàddu yi nga xamante ne ni nit dof wax na ko jëm ci engagement wam mi nga xamante ne ni boobu ba tey mu ngi wane boppam ci li xew ci réew mi euh, ba mu jural ko mu dugg ci kaso mu yàkkal ko lu bari tey jii nii soo toogee muy jàngat li nga xamante ne ni yàkkal na ko ak lim ko jàngal euh, ban gis-gis nga si am. waa xam nga yàq. Mhm. ak defar. ñaari mbir la yu bokkul mm. <coughs> mënoo di defar euh, ak yàqu fekk la ca maanaam nit doof dafa tontu tont bu am solo ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm mm-hmm. euh, mu ni jëmmi boppam moom waxut yow nit ki ni nga koy xoole wala maanaam moom bu xoolee boppam ndax am na fierté ci boppam mm-hmm. loolu kii bu sori la ma jigéen parce que nit léeg-léeg nga def dara maanaam nit ñi mën nañ bañ a xam mais yow nga ruus parce que da ngay jéppi sa bopp da ngay xam ni peut-être li ngay def du yow ngay tricher wala dafa am loo ci lal wala leneen ak leneen mais le fait que yow nga mën a xool sa bopp xam ni li ngay def euh, def nga ko ngir sa réew <coughs> def nga ko ngir sa jëmmi bopp c'est très important parce que parrainage nit ñi dañuy xëy di def loo xam ni. du ñoom mais dañuy def loo xam ni nit ñee tax ñu di ko def mais li ëpp solo mooy li nga def yow ngir sa jëmmi bopp nga xam ni boo jàkkaarlook seetu bi du rus ci sa bopp da ngay xam ni def nga loo xamante ni bi sa mbiri bopp la maanaam li mu wax ni ngëm-ngëm bu sori la maanaam loolu ki koy laaj jàpp ni li muy gis maanaam concert bu war a am amut kii bu war a lool loolu wut jàpp ne lu koy yàqal la loolu lenn la ci lii fondement li nga xamante ni moom la nekk muy li koy defar moom li koy defar li ko bégloo bon ji am na ci ay jaar-jaar yoo xamante ni bi jaar na ci mais tey ni muy xoolee boppam moom di am fierté ci boppam noonu la ko ay sénégalais di xoolee di ko naw parce que dañ koy naw c'est parce que lan dañuy xam ne nit la koo xam ni am na constance am na ngëm-ngëm ci dara te li mu nekk def na ci li ko war loolu nekk loo xamante ni bi lu am solo la parce que am na ñu bari ñoo xamante ni bi dafa waxaat ne depuis deux mille nangam je ne sais jàppatuma kii bi ba nëgë ni po yi ma doon àndal gis nañ ni waruma leen. Mm-hmm. c'est très important gis nga rappeur. Mm-hmm. jeunesse bi ñoo lay taw ñoo lay yëkkati. Mm-hmm. teg la fi nga teg jeunesse boobu di lay yëkkati mooy ñi nga xam ne ñooy ñi gën a sonn. ci réew mi maanaam dañ lay xool def la comme modèle topp la nga am ay ngëm-ngëm yoo leen di jaay à travers say texte li ngay rap li ngay wax comprendre ga nga xam da ngay porter seeni message maanaam li nga xam ne mooy kii am na ñuy dem nag ba ci diggante bi ñu jaay ko soppeeku ba xale yi dootuñu leen xàmme mm-hmm. mais moom am na fierté jàkkaarloo waat xale yooyu ñooñu yëg ni jaayu leen loolu mbir la moo xamante ni bii ma jigéen mhm. mbir mu am solo la mhm. donc ñu ko ciy félicité bu baax a baax parce que yombut waaw par ak doomu président yi muy tudd ne ñoom ñoo doon fay nit ñenn ñi xam nga loolu moo yàkkal ak yi ni mel ñiñ ko doon fay ñu nangu ko ñooñoo ñàkk ñàkk jom rek mm. waaw parce que xam nga tey boo demee man ba am yëg-yëg ni man war naa wax dara ci nit dof nit mën maa fay loo xamante ne bi day permettre man ma mën a bañ a wax ci nit dof kooku li may def defuma ko nit dof sama bopp laa koy def parce que man maa dem ba nga xam ne samay idée ñemeetu moo taxaw di ko wax lu tax c'est parce que peut-être am na loo xam ne ñu ngi la koy jox loolu nit ku dem ba toll foofu nit ku xeebu nga mm. c'est que parents yi dafa am nit ñoo xamante ni bii bu ñu xoolee seen bopp ñoom ci seetu dañuy rus dañuy xam ni li ñuy gis maanaam du ñu gis ñoom seen jëmm dañuy gis ni ñàkk jom a dañuy gis ni nit ku jarut daraa ngi nii loolu mooy euh, li nga xamante ni bi yow amale nga ko ak sa jëmmi bopp parce que nag kaay ma wax la de am na ñu bari ñoo xamante ni bi tey ma jigéen yaa ngi leen di gis ñu nangu lenn li di doxalee nenn li mais bu ñu demee ba toog xool ak seen njaboot ci kersa la ñuy dëkk ak gàcc parce que lu tax seeni doxalin moo tax parce que doom nawle la war nga mën a jàkkaarloog sa njaboot xoole même bu sa njaboot xamut mais war nga mën a xoolaat sa bopp am fierté ci sa bopp daal ah man de wax dëgg fa yàlla li ma war def naa ko te def naa ko ni nga xam ne noonu la waree parce que tey nan la la nit mën a jëndee ne la ma jigéen émission bi waxal lii wala lii bu ci wax mm. parce que ndax lii ak lii jox la dara loolu du say ngëm-ngëm du say conviction du sa lenn mm. mais nga dee ñëw exécuter loolu c'est parce que lan am na loo xam ne moo leen jox boo toogee yow après di lekk xaalis boobu est-ce que di nga am fierté ci sa bopp donc lii mu wax ni lu am solo la ma jàpp ni jàngal nañu ñun ñëpp ñu war a tirer leçon ci kàddu yi nga xam ne moom la wax maanaam nit boo toogee ba ngoon xëy suba ba ngoon nattaatal sa bopp dem xool sa bopp yow ndax yow tey am nga fierté ci sa bopp wala amoo fierté sa bopp bu fekkente ni bii gis nga ni am na ay njuumte nga ne ah fii de def naa fi loo xam ne bii erreur la fii de def naa fi fii fii fii bu subaa nga jéem a réparer mhm. loolu peut-être que ni mën nga dem ba yegg ay quatre-vingt nangam pour cent bu boobaa peut-être mën nga am ay fierté ci sa bopp parce que njuumte nit mën nay juum parce que mën nga bañ am ci sa bopp satisfaction totale mhm. man parensaay daan naa ko wax damay wax ne parensaay mës naa def def prestation mu neex nit ñi mais ma xool neexu ma et pourtant nit ñi parensaay dañ doon wax ne neex na mais man duma ma am satisfaction sama bopp maanaam à chaque fois damay critiquer sama bopp damay wax ne li ma def mën naa def lu gën a neex lii mooy bu ngay jóg def humour jëf lii parce que damay wax ne nit ki bu fekkente ni bi tànn na la parce que nga toog ba ci yàgg ay ndaw tànn la ne la yow de choisir naa la pour nga defal ñu spectacle ñi la tànn peut-être sax ci seen biir am na ñoo xamante bi nee nañ ah saa mii de est-ce que jar na ko ñenn ne non Sa Ndiogou vraiment nekk na koo xam ne ku ñu doy la parce que ni muy defee comédie dafa neex et cetera ñu tànn la nga ñëw ñooñu mënuma leen a satisfaire man damay wax dama daan wax ne public yi may dem man mënuma leen a satisfaire maam même ñoom bu ñu ma waxee ne man neex na pour man neexul. à chaque fois da à chaque fois damay bëgg li nga xamante ne bii moom laa ñëw naa def plus que liñ ma laaj. Mhm. ak lu ma mën a def ñoom bu ma génn dañ may tàccu wax ma ne ma vraiment toj nga fi mais du am damay am yëg-yëgu ni des na.

xalaatuma ci quelque chose de positif. ah oui. non pourquoi. ndax lan. mais munuñu ñooñu munuñu yor munuñu munuñu yor tey tey waxuma un jour mais tey tey ñooñu munuñu yor Sénégal. lu tax. munul nekk. le Diomaye dont tu parles là. musul sax nekk chef de service. ci fi muy liggéey. nga bëgg mu nekk chef du Sénégal. mais président kenn du ko jàng ci école. kenn du ko jàng ci école mais am na ay jaar-jaar yoo xam ne war na la fa mun a yóbbu. d'accord. des gens qui ont dirigé des choses.

Sonko ci yam ñoom ñaar ñëpp mënuñu jiite lii di Sénégal. waaw xam nga li nga xamante ni parrainage journaliste yi ñooñu yëpp quoi. Hmm. maanaam dafa mel ni parrainage euh, dañuy bëgg ñu sànni xeer Basirou ak sànni xeer Sonko moo tax ñu jël seen micro dem seeti koo xam ne da leen di wóor ne leen kii moom du mooy tiir bi lii la war a wax hmm. ñu tàllal ko micro xam nga parrainage. am na loo xam ne boo ko defee jubluwaay bi nga ci am yow mooy lii nga ci jublu mais nag dañuy taxaw mel ni comme si jubluwuñ ci lii naan la président kenn du ko jàng te fekk ne ñoo ko ci jublu parce que xam nga fekk Jean-Paul nga di ko laaj ci Sonko ak Bassirou Diomaye fay loo ci mën a jële lu dut lii kon pareen yi kiy def loolu ki sànni xeer bi sànni xeer mais maanaam ki ko permettre pour mu sànni ñii xeer kooku lañu war a laaj lan mooy jubluwaayam hmm. ci lii nga xam ni moom lay def leneen li ci am mooy Sénégal euh, dañu jël Senghor Senghor jël nguur gi jox ko Abdou Diouf Abdou Diouf def euh, vingt cinq ans gouverneur trente cinq ans premier ministre quarante cinq ans président kon abdu juuf am na jaar-jaar ñu jël Ablaye Wade ñu ne Ablaye Wade mooy ki nga xam ni euh, moo ëpp diplôme ci àddina bi bokk na ci ñu ëpp diplôme ci àddina bi jàng na lu ne opposé wu pendant vingt six ans mu nekk koo xam ni dañu ne ci lii lañ ko teg muy defar façon programme bu ne mu def ko ñu jël nguur gi jox ko ko Ablaye Wade ñu indil ñu président Macky président Macky jaar na fu ne ci li nga xamante ni bi moom la ñuy wax nguur nekk na fi ministre de l'intérieur nekk na fi président assemblée nationale nekk na fi premier ministre nekk na fi ministre des mi nekk na fi lu ne ñu jël ko jox ko nguur gi mais est-ce que ba tey li ñu war a poser mooy ñi ñu doon jox nga xamante ne bi ñoom mokkal nañ ñu jox leen ndax satisfaire nañ sénégalais yi est-ce que satisfaire nañ sénégalais yi donc dafa mel ni benn mbootaay boo xam ni rek ñoom ñoo fi nekk naan diw amut expérience diw am mais ñi am expérience fan lañ jëmalee réew mi ba tey réew mi bi ñuy jot na nga xam ni bi ñuy jot réew mi en 1960 Sénégal moo rawoon Corée du Sud tey pëndub Corée du Sud gisuñu ko Sénégal am na foo xamante ni fa la tolloon kon donc dañu tardé ci Afrique gi ñu nekk sax dañoo tardé parce que lu tax ñu tardé am na réew yu bari yoo xamante ni bii ba ñuy soog a départ joxe coup d'envoi Sénégal daf leen a jiitu woon lu soree sori tey dab nañ ñu ba romb ñu kon depuis que ñi ngi jox nguur gi ñi nga xamante ni bii tey ñoom lañ wax ni mokkal nañ ñoom ñooy ñi aay ñooñu gisuñu lu askan wi yëg ci li nga xam ne moom lañu leen jox nguuru sengoor moo dàq nguuru Abdou Diouf nguuru du juuf moo dàq nguuru Abdoulaye Wade nguur Abdoulaye Wade moo dàq nguur président makk Sall chaque jour day gën a yées maanaam dafa am yu bari yoo xamante ni bi dañ koy gën a perdre parce que li la koy wan nguuru Abdou Diouf moo ubbi woon rajo yi nguuru Abdoulaye Wade ubbi tele yi nguuru Abdou président Macky Sall mooy tëj tele yeeg wala boog tele yi léegi dañuy ubbi mais dañuy nekk télé yoo xam ni liñ leen soxlaa woon defatuñ ko donc dafa am yu bari yoo xamante ni sax dañ koy perdre léegi il faut chercher ailleurs gis nga damay wax ne li muy wax nii. Sénégal soxlawut dara lu dut ay lit njiit yu jub képp lañ soxla eh, te ñii nga xamante ni bi ñoom ñoo taxaw jóg sénégalais yi jox leen bopp mhm. sénégalais yi joxuñu leen bopp ndax leen xam nga lan moo tax liñ ñu jaay leen rek la mhm. mooy dañoo ñëw taxaw wax ni ñoom ñu jub lañ sénégalais yi interroger xool seeni parcours ñu am jaar-jaar ñu gis ni seen jaar-jaar de jaar-jaar bu jub la looloo tax sénégalais yi jox leen bopp ñoom li ñuy nattee ak sénégalais yi li ñuy nattee bokkut ñoom ñooy nattee ay diplôme moo tax pareen saa dañ lay wax ne la boo demee France dañ lay wax ne la ban diplôme nga am nga dem Amérique ñu ne la loo mën ji jëf loola comprendre ñii moo tax dafa am ñoo xam ne am nañ diplôme mais bu ñu amee diplôme bu ñu ñëwee la diplôme ba war a jariñ daanaka duñ ko def diplôme mu këyit kese la ñi nga xamante ne bi nag ñoom ñi ngi def ñoom li ñu mën ñu teg leen ci poste yi boo seetee ñi ngi def li nga xamante moom gi donk ñoom lii ñu wax nii Euh, lii la mën a wax parce que ci école boobu la jaar mu ngi jaar ci école Ablaye Wade génn jaar ci fi nga xam ne fa la jaar donc yooyu lañ mën a wax mais nañ xam ne rek am réew mi moom amuñu ci ñoom satisfaction bu ñu amoon ci ñoom satisfaction je pense que ñii sax duñu dugg ci politique le fait que ñii dugg ci politique mooy dañu nekk ci ay poste yoo xam ni gis nañ réew mi alal am na fi mais defuñu ko fi ñu ko war a def loolu bokk ci li tax ñu daadee taxaw daal di ne il faut que du ñu bàyyeeg ñii li nga xamante ni bii moom mooy yëf yi waaye faaw ñun tamit ñu ñëw bokk ci ñi nga xamante ni dañuy doxal suñu parce que sinon rek ñoom it dañuy doon ñi nga xamante ni bii ay complice lañ ci mbir mi quoi parce que ki mën ki mënut di def ki mën toog di ko xool lu yàq moo ko yàq. te nag ñi nga xam ne ñoo mënul ñoom ñoo yor yëf yi. Mhm. te wax dëgg fa yàlla nag 1960 ba nga ni yàgg na. Mhm. ñuy doxal dara doxut. Mhm. nañ ko jox ñi nga xamante ne bi ñoom ñoom ñi nga xam ñi ko bàyyi ñoom ñi nga xam ne munuñu di jàng di lang ñoom ñooy jàng mais ñee mokkal nañ ba pare mm-hmm. waaw loolu la ñu naan théorie lenn la pratique it lenn <laughs> lenn la te théorie pratique duñu benn mm-hmm. voilà mu ngi noonu euh, ñu jeexale ko nag ak euh, vidéo bi ñu leen di tegal nga xam ne ay kàddu la yoo xamante ne ne président Ousmane Sonko yëkkati woon na ko Euh, avant euh, son excellence di wax ne du ma euh, déposer sama troisième mandat bi nga xam ne ne sénégalais yi moom lañ doon bañ ñu déglu ko ànd ak moo du te dellu si. wéet na fa sax ndax xam ni li muy def ñu ngi koy xam. ñu bëri dañ ma noon bàyyi ba mu wax nga doog a wax man leen déedéet man li ma bëgg a wax askan wi foo mu jiitu ba nga xam ne lu mun a wax ëllëg du bett kenn mën na am mu taxaw ne leen man dootuma candidat nañ ko sóoraale lu mën a nekk la.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 ci fan yu néew di ngeen gis ñu convoqué assemblée nationale d'urgence à partir de semaine bi am dinañ yóbbu assemblée nationale loi yi ñu war a soppi ngir lii ku jéggi ñaanoon ci wàllu parenage parrainage élection ak yeneen i changement ci code électoral ak yeneen i loi ñu mën ko def ci diir bu gàtt procédure d'urgence gaaw leen génn yi dafa yàkkamti pour la ñu tënk ñoom ci seen bill ñu wote ko rapidement assemblée nationale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 parce que à chaque fois muy wax rek dañuy seetlu nii dafa mel ni dafa koy jiitu ci li mu war a wax. waaw ah, xam nga Sonko moom xam nga Macky Sall moom li ñu naan Sonko ici Sonko là-bas Sonko partout moom Macky moom gëm na ko moom xam na ni moom Sonko ngi fépp. parce que ba muy préparé li mu doon war a wax. boo gisee daf ko anticiper. waxal ko li mu war a wax laataan mu koy wax. bu bàyyi woon ba mu wax moo wax du am sens mais euh, dañ naan rek dafa jàngat ay waxam muy loolu loolu nag Sonko tàmmaloon nañu ko ci Macky Sall parce que yàgg na xam ki nga xam ne mooy président Macky Sall ay doxalinam mag yooyu mais li am solo ci mbir mi eh, mooy président Macky Sall dafa yor pikiiram bu muy anesthésier nit ñi. maanaam si période bu ne pikiir bi même pikiir bi la mooy def même effet mais dafa am nu ko soxlaa ak lu ko soxlaa maanaam kii ñooy wuute. Eh, pikiroon nañ ko fi réew mi mm. bi mu ne leen Karim Wade mooy problème bi parce que il faut que ñu càmbar ko réew mi nangu mu yoraat même pikiir bi pikir bi mu pikiraat ko gars yi ne leen xalifa sàll mii de dafa def naka sudut noonu mm. askan wi daal di nawaat terew daal di nelaw mu jëlaat même pikiir boobu wëlbatiku pikiraat ko sénégalais yi bi mu bëggee éliminer ki nga xam ni moom la ñuy wax Ousmane Sonko gars yi tamit daa dee nangu yenn waat na pikiir bi pikiir bi fi mu toll nii bi yoon <coughs> pikiir bi nag chaque jour dafa am day wax jàngoro ji moom la mm. bële passé jàngoro yi troisième mandat la bi jàngoro bii nag daf leen a bëgg a wax ne pikiir bi ma leen di waaj a pikiiraat c'est pour ñëpp bokk Ousmane Sonko bokkaat ci carte gi moom la bëgg a nelawloo waatee askan wi. moom daal pour pikiir leen ko maanaam bu Ousmane soo ko bokk moom la doon liggéey waaye bi mu demee ba sës dafa yenn waat pikiir bi daal ne pikiir bi il ma pikiiraat ko askan wi waaye nag li ma leen di wax chaque jour dama leen di jox doom boo xam ne dañ koy naan ma ne leen Ousmane Sonko de. day ñëwaat. bu ko defee nag ñu bari ci askan wi nga xam ni moom la ñu àndal dootu leen jaral leen dinañ ne na Ousmane Sonko ñëw. mais que cette fois parce que pare na saa yi Bob Marley defe naa moo ko wax moo ne mën nga nax une partie du peuple benn période mais munoo dëkk di leen nax waaye Macky saal nag xam naa du rastamaan mm. euh, xam nga Cheikh Baara woon na Amadou Ba rastamaan la xam naa Amadou Ba bu waxtaan ak Amadou Ba mm. defe naa ne Amadou Ba doon na ko wax texte boobu nga xam ne bii Bob Marley wax na ko mm. ne mën na nax une partie du peuple benn temps mais mënoo dëkk nag di leen nax fi mu toll nii foofu la toll moom xamul nii nax yi dafa jeex ci parce que réew mi dañoo dañu nax parce que li tax réew mi dañ ay nax maanaam moom ci jëmmi boppam daf ñu téye di nax dina mel ni ku yor ay gone di leen nax. Mm-hmm. mu mel ni réew mi yëpp benn nit a ko fi comprendre woon muy Ousmane Sonko mu jël ko téye mais nag dafa dem ba ki nga xamante ni kii kooku daf ñoo yàgg wax ay naxam moo tax fi mu toll nii tey problème bu mën a am rek nit ñi dañoo war a delluwaat ci wax yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko doon wax parce que peut-être buñ ci delloo rek. dina dinañuy gis à chaque fois yoon muy chemin bi nga xamante ni bi fa lañ war a jaar te donc defe naa ni réew mi jamono jiñ toll ni boo gisee mu wooteeb dialogue nit ñi demuñu finalement ngay dialoguer ak sa bopp ñi nga xam ne ñoom la ñuy jar xam nga ni soxla woo leen mais ñooñu soxlawu leen waaw soxla noonu ñooñu soxla Amadou Ba moom moom a yeewoondoo Idrissa Seck benn la ñoo bokk mbuus ñi nga bokkal mbuus ñoruñu la maanaam ñi nga xas ba tee ñoruñu la ñi nga teewut ñoom ñoo la ñor ñenn ci expolier yi ñoom non non non non ñooñu fi mu toll ni internet bee leen tee internet bi moom <laughs> booyee tee réew mi <laughs> booyee tee réew mi jamono juñ toll ni moom booyee ne nii ci réew mi mm. waaw am na yu bari yoo xamante ni bii tey mm. bu doon télé classique yeeg rajo yi yeg ko fi nekk yooyu jàll na bu yàgg mais defe naa ni ak hmm. fi mu toll nii boo yeeg internet bi hmm. am na ñu bari ñoo xamante ni bi même bu ñu bëggee dem seeni njaboota leen di wax toog leen hmm. parce que bés bu ngeen demee gis buy xam nga ñi nga xamante ni bi euh, kale na ñoo ñu demoon ci président Macky Sall pour mu di jënd seen mbir tey ñu woo leen ne leen kaay leen ñu waxtaanee ko ñu ne ragal a dem xam nga ni du ay ngëm-ngëm leen teree dem waaye ku ci suuf la booy yaa ngi taxaw. Mm-hmm. booy ñoom ñi ngi taxaw rek di xaar. Mm-hmm. kan mooy dem. 24 mm-hmm. heures. kuñ ko ci wëndeel sa mbokk ne la génnal wax. lan moo tax président Sonko maîtriser Macky Sall ba buy wax day mel ni day anticiper mbir yi. ah xam nga dama la bëgg a la. Mm. xam nga président moom moo waroon a maîtriser Sonko ba lépp lu mu war a def mu xam ko ah, mais finalement contraire bi la moo xam lépp lu Macky war a wax. mais Macky moom mbirum Sonko da koo réer mër. ah doy na waar da koo xam te xamu ko xamu pareen saa yi. mbër yi dañ koy wax ne ko dama laa xam te xamoo ma. Hmm. waaw waxee ne la xam naa la te xamoo ma. Hmm. dafa la attention. très attention. Hmm. Yeah. <laughs> en tout ngi noonu ñu bàyyi la tàggatoo. <laughs> waaw di am mbégte ak kontaan dama jigéen. waaw di euh, askan wi. di leen wax ne leen ñu ngi joxante dig daje incha allah ci kàttanu borom bi. incha allah beneen altine. ci kàttanu yàlla ci mi ngi noonu ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom Ndiogou Meng jaajëfal itam képp ko xam ne rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel di leen sant di leen gërëm tey jaajëfal Abdou Top mi doon monté Modou Diouf Abdoulaye Diallo nuy waale son bu Diop ak Ndeya. Euh, ci leen jox di daje nag beneen lundi ci l'émission des émissions